yaay ku góor ki di woon sama xarit mhm. am naa ci manquant ci jaara jaag nga xam ne ne xew bu jotaanee su ma too su toogee euh, ne ma gis nga yaa ngi nii lekkoo dara maanaam xew bi dama see xaw a tum ranke ci loolu mhm. daf ma daan jëlal ma lekk gaaw ma lekk yaasin xam na ci dara mhm. xew moom côté boobu moom ma ci doon toppatoo ren kon dama am euh, si xew bi am naa ci manquant waaw man naa am beneen lu ma lay laaj beneen manquant bu ma lay laaj ndax kenn daawul tudd umu saw saboor mhm. te tuddoo papa coon foo mës a gestu di nga gis umu saw waaye di nga gis papa coon mhm. ngay doomam bu sincère bu yàgg ba dara xewul mhm. yow xaaroo ba waali xew nga doog doon doomam ba ngay doon doomam mooy ba mu mettee ba tar bi ko ñëpp ginnaawoo yow umu saw saboor yaa taxawoon ni ko yaa may maye yaay sama papa waaye nga sincère nag ba tey jii may wax a yow ay mbokkam sax tey nga leen gën a bëgg léegi nag kooku dem demoon na ginnaaw umu noo ko dundee bis boobu man dama laa xalaatoon nag. waaw waaw waaw ni ma ko dundee de yal naa ko gëj a dundee te ci àddina ndax ginnaaw bi ma ñaanalee papa sama doom bi génn àdduna maam Abidja maam Assane Dia yàlla na xippee àjjana euh, dama dal ci papa Thione euh, sama dimanche boobu yàlla naa ko gëj a yeewootu ci àddina ndax maanaam bu ma amoon cardiaque man xam naa ne falaayam mais métit boobu ba léegi maa ngi koy savouré sama xol mais dama gëm yàlla di julli di def say allahuma salli muy muy wàcc tuuti. ci ci yonent bi rek moo waral mais Papa Thione nekk na manquant ci sama biir xol. nekk na manquant ci sama côté. franchement nañ bàyyi noonu ndax am na lu ma dese lu bari ci sama xol. ci moom te bu ma ko defee fii day mel ni ngistal la naa ko joli di ñaan di def euh, samay. wàcce kaamil di ko ñaanal te yàlla rek a tax te kenn bu mu xam waaye man man am naa manquant bu baax ndax koo xam ne da ngay toog rek maa Oumy Thiam mi dem studio am Saint-Valentin dama ko daan féetee teg Papa Thione xale bii ñuy génte tey da ko daan teg ci wetam di teg kon Maria Sine may sa biige may sa tind daawur mbaay galo daawur mbaay am naa manquant man mii maa am manquant la yàlla def jàmm baax na daal nañ ko yemale foofu daal nañ ko yemale foofu <laughs> waaye de xam nga man maanaam ñi seetaan ñoom xam na ni sax ne li ngay wax dëgg la du looy tricher ndax nag Oumou Sow moomul sénégalais yi lii dafa yàgg mais lan moo la gën a manqué ci moom. <laughs> li ma gën a manqué ci moom. nee naa sa jooy yi ngay jooy yàlla xam na ko du jooy ngistal du jooy seytaane ndax lu jóge ci xol la dem ci xol te leer na àddina leer na ay mbokkam barki Mouhamed nee naa la ba nga koy bëgg dara xewul ba ngay mel ci moom nii demoon nan ba Sénégalais yi ne Oumou Sow dafa nopp sax Papa Thione si ñun xamul mais ñun xam nañ cofeel bi nga amoon ci Papa Thione xanaa di la wax rek nga ñaanal ko fee mu tëdd gënu ko fii mu jógee ci barki yonente bi la Guigui maa ngi koy gërëm di ko sant bu baax ndax Guigui place bi mu toogee ci sama côté yombul ndax képp kuy indi ndawtal wala dara Guigui ngi jën Guigui Anta Gajaga ñoom ñëpp toog ci sama wet darma ñu ne déeta waay macha allah Guigui pare di waat ci Jésus di wax ne man laalu mu joxe xaalis bi ba mu jeex waat ci Jésus mu sow mu ne cent franc jël naa ko ci sa xaalis bi Guigui loolu mu def yëfu noobul la Guigui merci thank you bu dee ci côté sa sa xeet nee naa la amen alléluia amen amen Guigui merci